cher gentenet yu enquête 221 dal leen jàmm dalati leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé ko bis bi le jour mu des wàcc wàcc ay élection présidentielle yi yéenekaay bi dañu xamal ne ba léegi ci sénégalais yi ngi di xaar président Macky Sall jàppal leen bis bu baax ngir ñu mën a dem ci élection présidentielle yi waaye moom président mu ngi woon tekk tekkaaral démb daal la yëg ne ni ki ci alxamis ji bu 19 dina jàkkaarloog ci dellusiwaat tey ci ngoon jërekaay bi ne du yem foofu moom président Macky Sall ndax démb ci conseil des ministres bi sàkku na ci ministre de la justice mu yolomal yenn ci ay dossier ñu mën a génnee ñenn ñi prison comme ça jàmm mën a am ci Sénégal ba tax na yérekaay bi di laaj ci mbaadu président Macky dafa bëgg a génnee prison na président Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye lan ma wundu ordre yi mu jox na ministre de la justice looloo jëra laajte kenn xamagul kañ lay doon doonte président Macky Sall nee na tey jii dana wax ak askan bi ba tey yéenekaay bi ne surprise mën naa am ci déclaration président Macky ba mu set wecc na Ousmane Sonko mook Bassirou Diomaye a génn nag ci bi lu na jër coow li bari lool lenn wunu ko xam ne président Macky Sall def na ci tekk tekkaaral moom lañ ko sant gannaaw décision bu conseil conseil constitutionnel ni ki démb nag dañoo jékki-jékki arrêté maître Ngagne Demba Touré gannaaw ba mu jugee koo woon ca Mali dugg si Sénégal ministre de la justice doon xam ne ne képp ku nekkoon ci mandat d'arrêt laa la wax à tout moment mën nañ laa jàpp ni ki démb nag la ñu fekki maître Ngagne Demba Touré ca këram waa dig jàpp ko waaye moom maître Ngagne Demba Touré fa mu mujjee nag moo di rëbës yéenekaay bi ne fi mu toll nii day nguur gi dafa mel ne dafa kase nag série de libération yi nga xamante ni moo nekkoon ci détenu politique yi fan ji ñëpp ñi gis ay xale ñuy génnee ci ba ñu jàppee laa wax Ngagne Demba Touré la ñu wàññi rythme bi yi bëreetul xale yi ñuy génnee jamono ji Alioune moom di sàkku ci président Macky Sall mu bañ a may nopp nag ñi nga xamante ni ay saytaane lañu naafiq yi ak ñi ko bëgg a dugal nag ci guuta na leen moytu te continuer nag jàmm gi mu woote Walf Quotidien ne lii dëgg tey dëgg kay moo di fi mu toll nii opposition bi maytuñ leen jàmm duñu woote rassemblement ba ñu permettre leen ko te jamono ji nag li état bu Sénégal gi xërtal ci seen kaw mooy jël ay takk der ñu topp seeni cortège caravane laa la wax permettre tuñ ko benn candidat bu nekk ci opposition bi lii tax yéenikaay bi di laajte mbaadu jaay doole la nguur gi su tayee mu bu subaa mu teg xam ne ñooy dem ci élection présidentielle yi mayuñ ci kenn jàmm vox populi daal Macky Sall moo ko yor bu jàppee datu élection présidentielle yii dana gis na réew mi laa la wax jàmm dong la nu bëgg en tout cas li wértéer moo di moom président Macky Sall jël na ay mesure am ñeel élection présidentielle yi ni ki démb ci conseil des ministres bi te yemul ci mesure yi ndaxte ni ki tey jii ci alxamis ji war na jàkkaarloog presse bi àddu nag ci situation bi nga xamante ni moo ñeel processus électoral bi rawatina li candidat yi di sàkku ta ñu japp datu élection présidentielle yi ci na mu gën président Macky Sall wara waxtan ci climat sociopolitique bi démb ci conseil des ministres bi nak lim fa jot a ko mesure na xawna dal xel ndax sakku na ci ministre de l'intérieur mu jël disposition yépp ngir mëna organiser élection présidentielle yi ci na mu gën a lu jëm ci date bi nak yagatul dana ko japp ganna ba mu waxtaanee ak acteur yi ba nopi yëmu ci mom président Macky Sall mu ngay feddale engagement ci organiser élection yu jaar yoon leer nañ yo xamante ni du am par parlo sakku na tamit ci ministre de la justice mu finaliser yenn ci ay projet yoo xamante ne nii la mu ca jublu moom président Macky Sall mooy jàmm dellusiwaat ci dëkk bi dal am ci biir réew mi di jéggale tey jëllale li ni mel nag ñoo ngi ca njott benn projet de loi d'amnistie bu mën a génnee président Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye en tout cas coalition Diomaye président moom lijjanti wuñu sax ay amnistie jamono ji li ñuy lijjanti moo dañuy respecter calendrier électoral bi sàkku ci président Macky Sall bi nga xam ne président Macky Sall mu ngi koy demuñu dialogue tey demuñu dialogue suba buñ doon dem sax bay dem dialogue day fekk ne benn point dongo ci am mooy moom président Macky Sall dafay jàpp datu élection yi ci na mu gën a gaawee ñu fixé date bi nag daal di jeexal dialogue bi yemuñ ca ñoom waa coalition Diomaye président ñoo ngi exiger ci na mu gën a gaawee ñu respecté processus électoral bi bàyyi caaxaan géeg wiiri wiiri gi jàpp datu élection yi ñu dox jëm ci 2 avril Macky Sall mën ñoo abal nag ca biir palais ba ñoom coalition Diomaye président di fàttali président Macky Sall décision conseil constitutionnel bi nga xamante ni laa la wax kenn du ko négocier dañ ko war a respecté yéenekaay bi ne fim tonni kay candidat yi kenn ku ci nek mo ngay wadjal bopam waxuma la coalition jomay président sax waaye Amadou Ba directoire de campagne bi ñu ngay woote mobilisation sak wat ci militants et sympathisants yi ñu gën a fagaru ci jamono ji nga xam ñu ngi wadjal élection présidentielle professeur Cheikh Omar Diagne mom yak lu mel ne la la wax nguurug Macky Sall gi tek ci di xamal président Macky Sall mii ne ko na gis ngay organiser élection xam nañ ne fim tonni nekul ci sa bopp ndaxte conseil constitutionnel lam la sant ak yomb jarul wàccee policier jarul tal gaz lacrymogène convoquer le corps électoral électorale bii jàpp sab moom professeur Cheikh Omar Diagne ne ak a yomb waaye ni mu diisee ci président Macky Sall leen kese lay wundu mooy parewul pour organiser ay élection présidentielle l'observateur ne crise politique bii ñuy dund luy njiig di ñaag nag président Macky Sall mooy njaag ndax moom dafa bëgg di buur di bummi décision yépp moom moo koy jël tey ji nag ci ngoon war jàkkaarloog askan bi lan la fay wax moom président Macky Sall est-ce que nguur gi waaw wala déet direct news na en tout cas Khalifa moom moo ngi xëcc nguur gi waaye il faut que ñu lijjanti est amul double nationalité li ñu recarré Karim Meïssa Wade tooke bi mujjee dal Rose Wardini mbaadu dafa mujjee laal nag moom Khalifa Sall en tout bi xamal nañu ne amoon na fi nationalité française de moom Khalifa Ababacar Sall laa wax amoon na fi carte nationale d'identité française boo xam te nii mi ngi ko defaroon xamante amna ko ne passeport bobu mu ngi warona jeex le 29 décembre 2015 Khalifa Sall mi est-ce que renouvelé wul carte d'identité française am leral yi nak ci conseil constitutionnel dong lañ ko don xaar waye gis nañ ne Khalifa Sall bëggu cee wax te conseil constitutionnel tamit ñu ci information vérification bien nak lu war la ndax loolu lañu ñu Rose Wardini arrêté ko tamit Karim Meïssa wad ba bokul ci élection présidentielle yi mom Khalifa Sall mo tax présenté wul sénégalais yi firne gi wanane nationalité française bi nak nag mujjee ko annulé yor yor bi na xawma ñande way way Pastef sonn nañu jàppati nañu beneen kàngam ci ñoom maître Ngagne Demba Touré jamono ji mu ga ca rëbës yéenekaay bi des waat ci arrestation te ñuy xamal ne fi mu toll nii du yomb de ndax waa JPS national fi mu toll nii ñoo ngay woote mobilisation di avertir nag état bu Sénégal ne nañu génnee maître Ngagne Demba Touré mii a gaawee lu ko mooy danañ yëngal dëkk bi kuréel yi yëngatu ci wàllum justice nag ñoo ngay jàppale Ngagne Demba bokk na ci AGS SYTJUST ba ci UNTJ ñoom ñëpp ñoo ngay dénoncé nag arrestation seen collègue bii di maître Ngagne Demba Touré greffier yi sax fi mu toll nii may wax ak yéen moytul dinañu sóobu ci grève bu metti libération yéenekaay di ko dëggal ne waa dig démb lañ dem ca kër maître Ngagne Demba Touré jàpp ji coordonnateur UPS yéenekaay bi deesuwaat ci lan moo tax ñu daal jàpp maître Ngagne Demba Touré ne mandat d'arrêt moo nekkoon ci kawam la koy tuumaal nag diis na ba fu diis yam bokk na ci association de malfaiteurs lëkkaloo ak benn kuréel terroriste ay kàddu ñagas yu mu jël teg ko ci président Macky ay kàddu xupaate yu mën a ba noppi yóbbu ko ca rëbës yéenekaay bi yemu ci ndaxte xamal nañu ne démb tribunal tàngoon na jër ndax collèguam yi nga xamante ni ay greffier lañu dañoo dóor ci table bi sàkku ñu ci na mu gën a gaawee maître Ngagne Demba Touré te pourtant moom Ngagne Demba Touré ni ki démb dong daa waroon a jàkkaarloo juge deuxième cabinet bi waaye yëngal gi nga xamante ni collèguam yi yëngal nañ ko moo tax ñu mujjee renvoyé audience bi Les Échos yéenekaay ne xawma nationale des de l'APR mujjee ba ñu seetloo na Ndeye yu mag yi nekk ci APR ñooy démissionné yéenekaay bi ne Thérèse Faye mujjee naa quitté groupe ba nen na Fatoumata Tall na groupe ba Sira Ndiaye mujjee naa quitté groupe ba Awa Gueye mujjee naa quitté groupe ba Seynabou Gueye Touré mujjee naa quitté groupe ba ayam mbeng tam mujj naa quitté groupe ba ba ci Marème Babou ak ñeneen ñoo xamante ni li bëgg a dégg mooy Macky Sall seen yoon nekkul laa la wax ci Amadou Ba moom président Macky di wax ci Amadou Ba mi nga xam ne te ni mooy candidat bi waaye am na ñoo xamante ni mënuñ ko wanaasu yéenekaay bi ne gis nga Ndeye Sali Diop li mu sàkku ci biir groupe bi moo di ñuy wax ci Amadou Ba waaye ñoom Thérèse Faye dañoo lànk ba xalangu ci suuf doon yëgle ci biir groupe bii ne taxawal nañ beneen mouvement mouvement boo xam ne ñu ngi ko duppee mouvement national des femmes de l'APR Macky dans nos veines maanaam Macky Sall moo jeex ci ñun amuñu keneen ku ñuy suivre ku du président Macky Sall lii moo indi coow la nag ca biir groupe WhatsApp ba démission yemee nettuleeg male ku nekkay quitté jamono ji laa la wax responsable des femmes de l'APR jaarootuñu taal da fi mu a dëggal et quand il y a crise il y a crise <laughs> et il y a la barre d'ailleurs nos gamins bokki bosubak jabir